jaari jaari la ah, waaw waaw jaari sant yàlla nga ñëw si mariage sa xarit Pawlish lan nga koy. waa xam nga euh, Abdallah euh, Mbaye Ba te ngeen gën ko xam si turu Pawlish yàlla dafa dogal dafa mës a naw liggéeyu Jamra kon ñun campagne yi ko moom moo sàkku. pour ma boole ko ci liggéey bi waaw rawatina moom dafa nekk ci biir na milieu boo xam ne la mu mën ci ñoom man mënuma ko moo tax am na message yu bari yu ñu war a jàllale ci jeunes yi yi Jamra daf koy jaarale ci loxo Pawlish bi ci mujje nettali naa ko léegi Abdou Latif Gueye ba muy dund dañuy daan def chaque fois bu koor jotee ñuy dem di dimbali néew ji doole yi mais bi Latif génne àdduna 2008 ba léegi affaire bi dafa takk Pawlish ñëw dekkal loolu nee na ren nañu jox priorité jigéen ñi nga xam ne caabi dafa leen féete ginnaaw moo tax ñu cible la prison euh, du camp pénal de Liberté 6 ñu ngi koy waajal c'est que ñu ngi dajale fonds yi pour que bu ñu amee ay jumtuwaay yu demee ni ay eau javel ay saabu ba ci euh, ay coton hygiénique sax parce que am na jigéen ñoo xam ne seen parents yi dañ leen abandonné ba bu ñu ko soxlaa dañuy wër di ko ñaanatu seen moroom alors ñooñu ñu dem dimbale leen ko xalaat boobu yàlla nga ko jaarale ci Pawlish voilà kon nag moom daanaka dafa jikkoo euh, ci wàllu relation humaine loo xam ne Jamra mu ngi ciy doon góorgóorlu di ci sabab lu mu di li suñu borom wax ci alxuraan ne ad diinu nasixa diine euh, mottalinte la alors ba tax na depuis lors dara du xew ci famille am te waxuma ko alors lii nag mu doon cër bu rëy bu ma jox ma ne yaay ñaani jabar ma ne ko Thiaw Liss loolu cër boobu ëpp na yow am nga fi ay ay ay ay rakku papa ay magu papa am nga fi ay nijaay mu ne waaye waxtaan naa seeg famille bi yëpp nee nañ mariage bi yëpp sa loxo lañ koy teg alors ba tax na fa takk nañ sëy bi léegi bi ñu jullee euh, tàkkusaan tey le dimanche 2 juillet 2023 mooy jàkk ji nekk ci mausolée Seyna Issa Laye euh, lépp nag ñu ngi ko def ci euh, kilifteefu doomu Serigne Abdoulaye Thiaw Laye mu di Serigne Mouhamadul Bachir waaw léegi la fi jóge voilà ci ci ndigalam ak ñaanam te ak teddaay yu bërëb le alors ci lañu takkee sëy bi kon nag takk nañ sëy bi tey euh, alxayri bi jib na diggante euh, Abdallah Abdallah Abdallah Mbaye Ba euh, ñu di ko wax Pawlish ak maam Diarra sa turando maam Diarra Mbuub maam Diarra Bousso Diop. voilà kon nag ñoom la yàlla boole kon nag ñu ngi ñaan mboolem followers ak téléspectateurs yi ngeen ñaanal Pawlish ñaanal maam Diarra ndax yàlla barkeel seen sëy lafal leen cat dàqal leen seytaane ngir njaboot gu euh, njaboot gu barkeel mën ci toftolu incha allah waa kay jërëjëf. comment waaw ah, kontaan rek kontaan bu baax kontaan ci sama doom kontaan ci Ablaye Mbaye ak sama boroom kër bi ma jàppale ba lii lépp am ñun daal laay gërëm di leen sant kontaan si mu tëyeel ma jaar rek xam ne rakkam la léppam la gën ma kaa tëyeel comme na ma ko tëyeeloon ñemeñ ko moo tax ma may ko sama doom di ko yokk rek mu jàppale ay xale la yàlla baax na yàlla dina leen jàppale beaucoup. yaayam ak yaayam ak man ak kële toog nee. yaayam laa man mi yaayam man maay seen mag ak kële toog yaama saar sañu ñun ñett ñooñu sañu ñetti ndey ñoo bokka ndey ak baay mais macha allah jaar dañ koy ñaanal bésam bi rek yàlla nañ njiglaayam ndax jaara xale bu baax la xale bu yaru xale bu respecté ay ndayam fii bu ñu fi ñëwee kër bi la yaayam yoonu ne yoonam nekkul ci kër gi jaara la wóor ñuy defal loo xam ne yaayam ji du ko yëg ma léegi ma koy ñaanal ni ka ma koy ñaanal ni ka papis nañu jàppal jaar lu ñu jàppal daara mi rek doyul ndax ñun nag ñu ngi ko may nañ ko koo xam ne dañ ko bëgg ci sañu xol bi muy jaara mi li muy jigéen moo tax ñu may mais bu doon góor duñ ko maye ndax jaara mi sonaluñu jaara doxul ba yàqu jaara waxul ba yàqu jaar yaay mooy xaritam kon boog dinañu jigéen sëy rek mooy ci aadaam moo tax ñu mayee ko mu sëy mais bu doon góor duñ ko mu ko bàyyi fii mu di fi génn ndax jaar sonalu ñu benn yoon ñu ngi koy ñaanal jëkkëram ji yàlla nañu sokkoroo ne asamaan ak suuf yaakaar ji mu am ba ut si ko fii ñu ngi koy ñaanal ci barke maamam yàlla na ci gis lu rawee njortam kontaan nañ bég nañ ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal bokki papis ndax ku bàyyi kër yu bari ñëw sa kër jël sa doom kenn gënu ko ñu ngi leen di ñaanal yal na barkeel yéen ñi fi teew ñëpp ku fi ñëw yàlla sa aajo faju ci barke maam Seydi jërë ngeen jëf kontaan nañ bég nañ man moom wax dëgg fa neex yàlla mënuma sax wax mais jaara man sama xarit la barki Sëriñ Bamba Pawlish sunu mag la mais moom moo tax ñun namuñu dara tey bu fekkoon ñun teguñu place wala bëgguñu comprendre nga war a yor ñu yor bu rafet kon duñ fi teew ndax ñun ñàkk ñu la mais ñun ku ñu xoolee xam ni Pawlish teg nañu fu baax dëkkal nañu fu baax bëgg nañu barki Sëriñ Bamba ba xew bi amee moom moo yónnee ay taxi ni na samay raq yëpp ñëw képp ku ma bokkal na ñëw te bu ko neexoon di ko def comprendre nga jaara nag baax na bëgg na nit bëgg nañu ñun nag mosuñu ko sax gis ñoo ngi koy doog gis mais baax na dañuy woo day waxtaan ak ñun ni miin kër ñun mosuñu ko gis ñoo ngi koy doog a gis tey barke Serigne Bamba mais dañ koy ñaanal sëyam bii lu mu bëgg yàlla na ko ko yàlla defal yàlla na si am ay njaboot yu baree baree bari barke yonent bi am na jëkkër ju baax